dépôt bi dépôt en dépôt en ligne bi je pense que je pense je pense que euh, le prestataire bi mu koy bi muy bi muy bi muy projeté bi muy projeté léegi am na benn benn partie bu nga xamante ne euh, réactualisé nañ ko muy partie bu nga xamante ne boo demee ba nga xamante ne def nga pièce bi bari validé ba pare da lay ubbil beneen fenêtre bu nga xamante ne pour que nga pour que pour que pour que nga nga nga joxe li nga xamante moom mooy dimbali par exemple mun nga envoyé par Orange Money boo am na benn code bi ñu lay jox code boobu moom ngay ñëw renseigné boobu pour que mu mën a jël effectivement li nga xamante ne moom mooy sa sa sa su fekkee ne physiquement la ça pose pas de problème mais en ligne également am ngeen possibilité déposer foofu et puis fay par orange mën a ba pare jël li nga xamante moom mooy code bi ngeen renseigné ko foofu ba defee ñu ñu mën a jot euh, benn notification pour wane ni yow sa dossier complet na pour mën a délivrer li nga xamante mooy carte nationale bu fekkee ne da nga jël dix mille francs nga joxe ko pour le traitement du dossier la que ñu jox la que ñu ñàkk la jox c'est dix mille francs qui ne sont pas boo gisee li ñu li ñu wax dañu la à partir boo déposé ba pare ñun am na ñetti weer avant ñu lay jox li ñuy woowee carte nationale de presse ci ñetti weer yooyu nag saytu bépp bu nga xamante ne war na ñun dañ ko war a def mooy di moo di su fekkee ne da nga déposé diplôme dinañ vérifier ndax diplôme diplôme bu baax la dinañ vérifier ndax école bi ko délivré école bu nga xamante ne état du Sénégal reconnaître na ko dinañ vérifier li nga xamante ne mooy pièces yi nga xamante ne da nga ko da ko fournir ndax ay pièces ay pièces bu baax la euh, par rapport ak expérience bi nit ku ci nekk yow yaay juste yow yaay justifier expérience bi nga am boo nee ñaari atu expérience nga am yow yaay indi ay pièces yu nga xamante mooy prouver ni effectivement def nga ñaari du ñun ñooy dem vérifier ndax effectivement def nga ñaari at yow yaay déposé nga ay pièces yu nga xamante mooy firndeel ni def nga ñaari soo ne fukki at nga am également yow yaay indi ay preuve yuy wane ni def nga fukki at yooyu autrement dossier dañ koy dañ koy rejeté ñu ñooy dem prouver expérience bi nga am yow yaa war a prouver expérience bi nga xamante moom nga am pour que nga mën a dem commission de validation des acquis parce que comme ni ñu koy préciser ñi nga xamante ne expérience yi ñu ngi koy laaj mooy ñi nga xamante ne dañuy dem commission de validation des acquis de l' expérience ki nga xamante ne dafa am diplôme bu nga xamante ne école de formation en journalisme moom moo ko joxe kooku soxlaatul expérience diplôme am bu ñëwee rek xam nga ak yeneen pièces yi nga xamante ne furu na ko bu ñu vérifier que ni authentique na automatiquement dañ koy délivrer carte nationale de presse ñi nga xamante ne génnul école de formation nag ñooñu la ñuy laaj ñu am licence ak ñaari at expérience wala bu ñu amul loolu ñu am 10 ans ñooñu nag loolu buñ koy yembalee ba pare bu boobaa dañ leen yóbbu commission de validation des acquis de l'expérience foofu nag ñu saytuwaat leen seen liggéey xool ndax apte na à la pratique journalistique wala nekk nañ ay techniciens yu xarañ ci seen liggéey avant ñu leen di jox li nga xamante moom mooy carte nationale liggéey nañ ci ni site internet bi nga xamante ne moom mooy recueil li ñu woowee dépôt en ligne euh, bi ñu paree loolu ñu dem fi nga xamante ne moom mooy CDP commission des pour ñu jox ñu autorisation pour ñu mun collecter données journalistes communication yi léegi liggéey boobu nag bi mu euh, dañ ne pare nañ liggéey bi et que mën nañ commencé ubbi li ñuy woowee dépôt pour l' obtention de la carte nationale de presse donc jàpp nañ le mars 2021 muy euh, bi di ñëw incha allah rabi dinañ commencé euh, recueillir bi nga xamante ne moom mooy dépôt de candidature yi léegi nag ñu dépôt boobu également ci ñaari fànn la ko professionnels yi mën defee. benn moom mooy site bi nga xamante ne moom lañ mettre en place euh, ñu déposer foofu directement euh, euh, spécification technique yëpp yem na mais également mun ngeen déposer de manière physique buñ ko constituer seen dossier ñëw indi ko fi nga xamante ne moom mooy secrétariat administratif et technique bi nga xamante ne ci ministère de la communication pièces yi nga xamante ne war nañoo fournir war nañ ko fournir également loi bi moom moo ko wax mooy am na benn document bu nga xam war ngeen ko signé benn formulaire bu nga xamante ne da ngeen di jël engagement te leen informé commission bu fekkee ni am na benn changement bu intervenir seen liggéey wala bu fekkee ni dem ngeen ba nga xamante ne war nañu retiré seen carte euh, nationale de presse ngeen ngeen jot ngeen delloowaat ko commission bi war ngeen ut kutis bu nga xamante ne correct moom moo koy joxe euh, président bi am na lu ci wax léegi Euh, war ngeen a euh, joxe casier judiciaire bi nga xamante ne ñu koy tëjee tribunal euh, war nañoo déposer li nga xamante ne mooy extrait de naissance wala photocopie carte nationale d'identité ñi nga xamante ne am nañ diplôme également dañuy joxe photocopie légalisée diplôme bi ñu am ñi nga xamante ne amuñu amuñu diplôme dañuy joxe yeneen pièces yi nga xamante ne ñoom ñooy expérience bi nga xamante ne am nañ ko war nañ joxe également ñetti photo ci dossier bi la bokk. à la somme de dix mille francs mooy bi nga xamante ne moom am document boobu nga moo leen leen may sañ-sañu liggéey liggéey journaliste journaliste wala technicien de la communication. code de la presse dafa am lu nga xamante ne moom la moom la dëral ñun ci loolu la ñu tënku ci loolu euh, moo di dafa teg moom la war a remplir pour mën a am carte nationale de presse. Eh, te ci loolu mooy pièce yi nga xamante ne nit ki war na ko pour pour ko mën a am li nga xamante ne mooy carte nationale de mais dafa prévoir également ay sanctions ci ñi nga xamante ne respecté wuñu charte yooyu maanaam def nañ ay yenn fraude su fekkee ni dañoo déposé benn diplôme bu nga xamante ne diplôme bu faux wala ñu joxe ay information yu nga xamante ne ay information yu fausse la wala ñu def njuuj njaaj ci li xamante ne moom la ñu war pour am li xamante mooy carte nationale de presse am na ay sanction kaso sax mën na dem parce que am na ay peine yu nga xamante ne ñu ko prévoir bu commencé ci six mois ba mën dem ba ñaari atu kaso pour ñi nga xamante ne dañu frauder pour national de presse ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo dimbale ñi nga xamante ne ñoom ñoo fraudé exemple bi may joxe par exemple kenn dem ci par exemple ñi nekk école de formation bi jox leen diplôme bu nga xamante yow amuloo ko kooku noonu bu ñu jàppee journaliste bi non seulement am na euh, sanction yu nga xamante ne day dal day dal ci kaw mais ki nga xamante ne moom moo ko aidé également à ce que mu am document yooyu également sanction day dal ci kaw loolu nag code bi moom moo ko tëral te ñun également bis lu ñu war mooy jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy yelloo kàddu boobu parce que dañ bëgg mu nekk lu nga xamante ne lu am solo luñu participer ko def lu mu waree loolu la ñu loi bi mais lépp la nga xamante ne loi bi loolu la tëral ñu def ko loolu la ñuy def dafa la ñuy yem ah, autrement wax dëgg yàlla képp ku nga xamante ne yelloo ko incha allah rek bu ñu ko jox carte nationale de presse ki nga xamante ne dafa nekk dafa nekk école de formation kooku donc ki nekk école de formation même ku nekk ku nekk CESTI nekk deuxième année par exemple euh, CESTI école bu nga xamante ne dañ ko reconnaître par l'état mais bu fekkee ne deux ans nga am amagoo diplôme bi mënuloo ñëw au niveau de la commission tank que amuloo diplôme bi mënuloo mënuloo ñëw au niveau de la commission expérience bi li ma wax mooy ñi nga xamante ne amuñu diplôme diplôme bu nga xamante ne diplôme de journaliste ñooñ la ñuy laaj licence ak ñaari atu expérience léegi ñaari yooyu expérience li ñu wax ñaari at expérience moom mooy euh, liggéey nga ci collecte traitement ak diffusion de l'information su fekkee ne da nga nekk ci benn rajo mu nekk rajo communautaire wala mu nekk ci rajo bu nga xam reconnaître nañ ko nga nekk foofu nekk commercial et consort loolu du expérience bu nga xam ñun dañ ko mën a reconnaître expérience bi ñuy reconnaître mooy expérience su euh, collecte traitement ak diffusion de l'information moom la loi bi wax na nit commencé na dans une dans dans dans un organe de presse commencé ba nekk fa commercial dem ba ci biir xam nga mbir mi sax ko mu dem defi formation pour am diplôme de journal mais tant que sa expérience nekkul ci traitement euh, traite nu mu tëddee collecte traitement diffusion de l' information expérience boobu nekkul expérience bu nga xamante ni commission bi da koy accepté.